sëñ bi nee na jërëjëf nee na alhamdulilahi alhamdulilahi rabbil alamin rek ñu gën a sant rek cant gu rëy rëy rëy rëy ndax tawféex ju rëy la ñu am sahabatu rasul gaa yu baax ya la amoon gaa yu gën ya la amoon tawféex joojee ñu amoon am nañ ko la ci gën a bare nag dañ dul xam liñ am waaye sant rek lañu war a def tey jéem a xam li nu am loolu nag mooy jéem a xam sëriñ bi rek te jéem koo dund rek loolu nag yomb na jafe na gannaaw àdduna rek gannaawal àdduna rek dara bañati laa saf ci àdduna yittewoo yàlla rek dara dootu ko dootu dootu ci dootu ci ne lu dul loolu sëriñ bi jaarul ci lenn lu dul jóg ne siiw wutali boromam fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gis fa tabaarakallahu nee na li mu war a def lépp def na ko dem na ba ci boroomam lu jiitu mu jox ñi mu ko bokkal ñépp seen aq muy malaayika muy yonent muy ca gaa yu baaxe ñum ci mën a doon ñépp jox na leen seen àq mu nekk diggante boromam ak yonent bi rekk nag te waxtu wu ne mu mel ni muy door a sóobu ci lu neex boromam waxtu wu ne mu mel ni kuy door a sóobu jëm ci boromam kuy doog a déglu ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax ci loolu rek dàkk dañ koy misaal rekk ci saayir ñu mën koo dégg waaye sëriñ bi daraam xajul ci saayir léppam baatin la nan sant bu baax rekk te gën a góorgóorlu te xam li nu am bu baax loolu moom mooy li ci am solo nee lii mu wax nii doomu aadama yépp la waroon waaye nag nu am tawféex rawatina ci jamono jii ñu toll jamono mustabaax baax sax ci coobare sunu boroom moo xam la mu ko defee waaye jamono jii moo ci raw ñu gën a xam rek ne tawfeex ju réy la na am sunu boroom tànn nu boole noog sëriñ bi gën noo gàttandoog tawféexi sëriñ bi itam ci soobu gii nuy jéem a def loolu ci jamono ji ñu toll jarul di wax sax ne néew na waaye mën nañoo wax sax ne amut muy lii nu am nun ñii di taalibey sëñ Tuubaa di ci jéem lu néew a bari loolu war na noo sant cant gu rëy te gën a soññ suñu bopp nag suñu kem kattan am na ci gaa yoo xam ne mos nañu lu sóobu saf kon gaa yooyu nag kon yoon waa ngoog ñu ko mosagul bu leen dara saf te sóobu safu leen ba noppi jërë ngeen jëf yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg lool xasida yeeg lépp noo ngi ciy fas rek mu yàgg fi euh, lu mët a fàggu sëriñ bi fàggu na ko lu mët ñaan ñaan na ko te jubóo na ceeg boromam kon ñu amuñu génn yi te judul li mu ñu joxoñ rek ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér jërëjëf Mbàkke ak sa mbokk yi tedd yi na ñëpp tàllal seen loxo